te Guy Marius Sagna daa war a génn. ah ma ko ciy boole. waaw waaw. ah ci daaneel. waaw suñu gaz du ko teree xeeñ. troisième mandat xaju fi. Guy Marius Sagna daa war a génn. kon tey ñëw dindi mandat bi. mandat bi ëpp naa dindi de. mandat bi nag alaay pour man war nañ koo dindi. Eh, mandat bi eh, pourtant mandat bi ba nga yow ñuy taalaguñu bay yàq. mandat bi alaay. ni ma la wax du dañ de gis nga. <laughs> non alaay yow comprendre loo quoi. ñii dañoo taalaguñu bay yàq alaay. dama ah mandat oui eh, pourtant mandat bi day tonton day ah xanaa ñu kii rek ñu ñu ñu yëglu rek waaye day man day dëgg dëgg fa yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg man day yaakaar naa ne day dëgg dëgg tonton day loolu nekkul ci bopp bi xanaa laa yaakaar. voilà ci ñi taaluguñu ba yàq mu mandat. ñi taaluguñu ba yàq de. ah non tonton tonton non non non man waxuma sax ay affaire républicain ndax ñoom def nañ fi yoo xam ni moom toog fii naan ay républicain lañ ñoom nit sax dañ lay xem. Hmm. waaye daal xam naa ne troisième mandat bi daal. déedéet déedéet déedéet déedéet man di man di dëgg dëgg day man di damaa jàpp ne rek xanaa moom daal fi mu nii daal boo gisee mu naan du ci tontu waa wala déet. Hmm. day bañ daal ni fii laa koy yemale rek bu ko defee ay nitam daal di cokkal mun daal lii raax la voilà bu ko waxee nag bu ko waxee nag li desoon ci parti bi kës néew. non non non boobu moom day daal di doon sabar ko tas moom. ñëpp ay feccandoo xale yi commencé ramasser saisi di yóbbu. ku ne di def lu ko mais troisième mandat moom yaakaar naa ni moom war nañ koo dindi de waaw pétrole bi tamit li ci nit ñi di wax tam na ko def ñu dindi ñu dindi tam suul gaz du ko teree xeeñ nañ ko leeral mu leer xoolaat contrat yi nga xam ne maanaam duñu ko jotoon a signé xam nga li ma la ay mode fast track yi ñuy wax nii yëpp exploitation beeg nangam sangam yi ñun yooyu waxuñu ko li ñuy wax mooy contrat pétrolier ak gazier yi ñuy signé ah. ak sëñ bi timis mook tàkkusaan moom mu àndal te tàkkusaan dëkk kër tisbaar yooyu ñu lekk réglé ko léegi mu des affaire Guy Marius Sagna bu gii génnee léegi alaaji daaneel gi mel ni comme daaneel ga woon rek waaw pecc moo gis day am daaneel waaw waaw faw nga ah waaw kii de non non kii kay kii kay comme que alaaji nee naa ko ca toftal ko ci de waaw ah, Ousmane Dia moom insha allah àjjuma ja moom te kii Mari Sagna daa war a génn daa a génn nga ñëw ko lan la mais sénégalais yi tamit nañu génn xeexal ko ah nañu génn xeex ma génn xeexal leneen mais génn xeexal Guy Marius Sagna gi dëgg de wax dëgg yàlla lii dafa nekk priorité pour Sénégal. ku ci nekk daal ca la ngay yëngu alaaji. Mhm. war nga caa xeexal kii de. wax ku nekk daal la ngay yëngu. Mhm. ñun waroon yi daal. Mhm. football kat yi daal fu ñu war waratee football muy Ligue 1 wala Ligue 2 wala national. balaa ñoo tàmbali. ñoom ñoom nañu yëkkati seen loxo. ne libéré kii. administration bi kuy dugg si sa bureau. balaa ngaa def dara. jàkkaarool ak photo tonton bi ni ko libéré kii. Mhm. ku ne fa ngay ni ñu nekk ci rajo yeeg télé yi ëbbale wax ne niñ libéré gii. marchand ambulant yi waaw kay waay. voilà voilà voilà. voilà loolu tëgg de. bis tata ci tata yéen ñëpp waxaloo ne waxaloo waxaloo wax na yéen ñëpp yuuxandoo leen. ngeen ne gii yéen yéen ñu ne ci tata yi ak Dakar Dem Dikk ak taxi loolu dëgg ah gii kat sa waay na courant bi la doon kaas. dëgg yàlla. ñun ñuy waaw mu ci ci camp pénal gi mais Mantoulaye kii dafa war a génn te kenn du xeex. wax dëgg bi dañ ni dañ fa génnee. dafa war a génne ah dëkk bi dëgg dëgg lii nag amul fenn. dëkk bi lii amul fenn nañ bàyyi kii mu dem ci njabootam. waxuma la dara waaye dafa ay nekk ay doomam. waaw ba pare nan nga fay nekkee ñaari weer alaaji juróom ñaari dong ñoom ñoo la visité waaw loolu tamit doyul waar te ñu nga ànd la ñëpp génn nañ ba ñibbi. ñëpp ba mu des yow ñëpp ñëpp. man xanaa dama ne gii moom xanaa dafa def infraction boo xam ni dafa bi ñu ko bi ñu ko patam patamee dugal ci pale bi xanaa dafa am lu mu fa lu nit ñi yëngu. wala <laughs> yéen a bokk benn ñëpp dañu leen fekk. jàpp leen ngeen ne la mu ciy giri. waaw ñu tëj leen. bàyyi ñeneen ña la. Ah. waaw ban siis moom moo yor dossier yu kii. wala maître Moussa Sarr dimbali ñu non génn ji waay yi ma ngi sañ nañ génn ci kaso bi dañu seet yàlla génn kii ci kaso bi ñu wuyul waaw li nga wax sagu loolu mooy dëgg man de saa bu ma sama tànk dem ci ah, demul ci moom yàlla aji wala sax teg loxo gi moo la moo moo war a dakk ku foog ni si benn sa benn signature rek ci la ñuy dugal nit kaso xañ ko jant bi xañ ko njabootam ndax as pouvoir su la yàlla jox bisi ngay ñëw ñu signé layootam yow tam benn signature kese dugale ci corps bi yaa ngir dugale bàmmeel waaw signature médecin bi wane ni dee nga waaw ñu ñëw certificat benn signature ngay jaayi doole dugal ci nit kaso benn signature moo lay dugal bàmmeel certificat gendarme yooyu xam naa ne ña ko sax xam naa àqu ak lan yu Sénégalais yi bu leen jàppee du nit a koy signé de. nit a koy signé. waaw waaw nit a koy signé alaaji. waaw àq baaxul. nit a Mari Sagna daal nañ ko bàyyi mu dimbali. loolu mooy dëgg. war a génnee <laughs> ñooñu bokk affaire ci wax na ngeen di fay courant. <laughs> waa ji moom xaw ma ban côté de. yeneen côté moom garaaw. bu leen neexee yéen a nga séq politique bay xeex seen biir bokk na ci parti ngeen bokk ci parti bu tudd APR mais wàllu wàllum courant bi moom yéen yéen a dàq fay ñëpp. génne ko te yéen yéen gën a sonn ñëpp. yéen yéen a gën a sonn ñëpp. dañu ko génne. boo yi bokk APR ñoo gën a sonn Ismaïla Yacine chaque jour boo dajee ak ñoom li ñu lay wax mooy amuñu ndimbal amuñu ndimbal suñu bopp subvention yi gisuñu ko. yéen waa COJER. ngeen naan da di jéem a euh, anti flyers. dimbali leen nit ñi. ah waay waay dimbali leen nit ñi génnee kii. eh ah. waaw yow. ñun day ñun ñun dañoo dul. ñoom ñoom dañoo ñoom ñoo gën a jiitu sax ci flyers ñu naan ñu naan anti flyers ndax ñoom ñoo gën a ndóol. ñoom ñu daga ñoom ndax si ñoo nay. dañoo sonn sonn sonn sonn. ñoo gën a sonn lamdaa bi ñoo gën a sonn ndax ñoom ñu wër gi ñu bokk daa nay. ñoo gën a sonn lamdaa bi. waaw ah, ah, waaw moo tax. yéen yéen da ngeen yéen yéen yéen da ngeen a sonn sonn. ala yow ñii xamoo sax li ñuy dund. mbubu mbubu bu am poq mbubu bu amul poqtaal la ñuy sol. si leen moom nga naan waaw yéen moom. ci lu amul bokkutaan. sol su dee yéen entreprise moom jaaduwul ci yéen da ngeen di wax flyers ndax courant bi dafa cher te newu leen kenn. gis tal la rek pour waa ji tonton jogo yi gis leen. Ah, ne ñoom itam vraiment il ma défendre. yéen waroo leen défendre kenn. Mm, mm, mm. le ministère de souveraineté ak ministres yeeg DG yi génn dem dem au charbon. comme ni ko Mame Mbaye waxee waaye yéen da ngeen war a toog seen kër yéen toog leen seen kër yéen booy bu ñu jógee jël leen naan leen dem leen ci réseaux sociaux yi eh, di xeex te a ngi nii gii dañ ko war bu ngeen walaay bu ngeen dugalee kaso gii ci ci ci ci procès bu kenn gisul procès bu kenn xamul lépp na lu ci politique gii day gii day ah, dana génn ah, seen seen certificat bi ngeen dul gis ngi ñëw de te des des na ko signé de gii dinañ ko génne waaw ah, wallaahi waaw gii dee dinañ ko génne moom alaaji xam nga certificat de ma du ko gis mukk ci àddina laa ilaaha illallaah certificat de ma du ko gis ah mooy chaque ñu defaral ko ay nit di wallaahi borom du ko gis mukk mukk ci àddina. waaw ci yàlla. sa carte d'identité yëpp alaaji say mbokk téye ko nag. wallaahi lépp. laa ilaaha illallah. te te te balaa mu gën a ñàkk fay na yow nga nekkoon ci àdduna. Euh, doon ko doon ko man daa ko doon dogal. wallaahi ndeysaan. waaw ba boo musaan saqal gaa yi pat pat yi. ñu tax ñu la bis nga mel ni cornetu euh, keccax. allahu akbar allahu akbar. waaw da mel ni cornetu keccax. taxañ la yóbbu. Hmm. waaw danañ ko génne de. danañ ko génne de. pale ba dee mënoo leen faa teree dem kenn moom. pale ba moom ka fay yeewoo da koo mu naan na bàyyi dem pale dem ba mu neex dox ba duñ dem pale. dem pale ku fi am soxla laa lay wax ni alaaji. dem pale ku fi am soxla. ku fi am soxla. ku fi am soxla njiitu réew mi sa xel di njëkk a dem muy syndicat muy jàngalekat. muy euh, société civile. waaye dem muy. waaye dem pale ci booy après la ko ñëpp gisee. xelu ni ñi demul woon pale. vraiment ñoo jëkk commencé dem pale di tëb. keroog bañ ne Alioune Sall dañ koy génnee ci list yi. ah bañ ne Alioune Sall doo nekk député. mais ñooñu li ñu def alaaji moo gën a garaaw. xam nga gi bëccëg la ko def. Eh. bëccëg la ko def wala la ñee guddi la ñu dem la amu ci grille fenn la mujjul fu dul. waaw wut leen ngeen sepp ci quelque ñu dugg wax ak grand bi. comme ça ngeen mën a dem ñibbi déggoo ma de ñu tànn ay nit ci seen biir ñoom ndax Alioune Sall warul nekk député Alioune Sall bu jaaree yoon ba jaar yoon mais lu tax lu ñu bañal Karim Wade ñu bëgg koo nangul euh, euh, Aliou Sall. ah. wallaahi te yow Macky yow yaa fi tëdd ne dee monarchie réew mi du fi am du moom mës a fal sama rak ci tuddam ngénte doomam nga ko waxe ñëpp teew. ñu toog bëccëgu ndar kàmm nga fal ko du nekk député ñaata nit ñoo fi nekk gën a mérité député sarak jooju te dañ leen a génnee nekk ñu député seeni mbokk dañoo am fitu dem palais mais parce que sarak la nit ñëw palais la ngaa mu ci giri ñu sepp ci ay ni dugal ca biir alaaji ne leen toog leen ñu recevoir ngeen waxtaan gii moom kaasul député loolu kaas courant bi nga ay na na bañ a dem palais te du yéen ñoo ñeen a jiitu woon palais ak scandale yi feeñaat ci ak scandale bi feeñaat ci courant bi démb ak tey. di Ouma Faye waxaat scandale ci courant bi. facteur ci compteur Woyofal yii. ah